ñaareelu xalifa sëñ Tuubaa koy jël muy Cheikh Mamadou Fadal nee na guddi goo ñam laa peey yonte bi dañu lay béy jëm mooy yeggale jumaa ji njëkk doon imaam kon loolu yëpp mën a salaata Cheikh Mamadou Fadal ko woo bi maanaam sax naa ñu fa xool troisième xalifa sëñ Tuubaa Cheikh Abdoulaye Lahad ko koy duura bi ibnu Seydi jàng xasida doomi sëñ Tuubaa yi ku ne war na loola addiya yërëm leen tamit kon dimbali ci sa alal si Abdoulaye day borom wala si lu yóbbu na ne boo am seen ilayka demal ci aay ba numéro 4 si Abdou Khadar comme dajeel moo la gën a sàmm te sunna bu solo sax da ngay gis jeexitali solom ca roy Rasulullah alayhi salaatu wa salaam wala si lu yóbbu na ne unsila ilayka wa ma unsila min qablika jëlal Cheikh Saliou waaw gaa yu baax yi ñu jiitu woon seen melo ya lépp la indiwaat لك أنا أنا وعلينا أنا المقاولون فتاك أنا وصعدوا في أنا فالي بعده أنا ما حتوا أنا سبر كل أنا سجع سيح أنا وعلينا كي أنا جيرو بيلا أنا بيلا بسوا أنا الله فتاك أنا خبر كاكاي أنا ومسيان كي أنا يبان لنا أنا لكي موي أنا حلم صحيح أنا تلغو داري أنا الحلم صحيح أنا الثاني الذي أنا الأمل مع أنا ليسهل الامر الثاني الذي يكمل الامر للخادة الأجورة والمساجد بتي والنسب وإني سائل سل على الثالث وهو المسلم الثالث صدقه صلاة المسلم شيخ سالم وهو كم جامعنا تيال مولا داخل لكي قلنا على قد يابلا قلنا من الدبلي أبلا يمانا كي جامعنا سنتوا كيف لكم دومي سنتوا فعلا تخوتي عايبا léegi wa bi laaxira tun yoo xam ne walaay ñëw ku njëkk a dañu woon doon yi sëñ Tuubaa yi buñ fi jógee seen yëf yi das dañuy noose yoon wi rek yoon moom bu doom yi jeexee yoon wi taxaw nekk yoon ki ci sët yi lay amee doole ndax nekk doon yi sëñ Tuubaa yi julli juróom la ñu woon sëñ Moustapha yi taa waaye ñaari rakkay fajar la xëy na fa ñaar ñaari rakkay fajar fajar boo jullee ñetti rakk baaxul kon am na lii ko ca topp sëñ Fall li muy baax baax espoir la boo jullee juróomi rakk baaxul ko ca topp sëñ Cheikh Abdoulaye ñeenti rakka takkusaan la soo jullee juróom du dox côté bopp Cheikh Abdou ñeenti rakka la boo jullee ñeenti doxut côté bopp Cheikh Saliou la boo jullee juróom côté bopp Cheikh Baara bu la neexee fanaa nee naa fi la ba mel teel kenn du la bindal bàkkaar wa bi laa xelful yom noonu surriyatan tayyibatan tujjal ci dugub ndax ne nabiyal Moustapha taj taxit loolu si ñu waaye ci sëñ yi lay tàmbalee jëm kaw. kon ku yaakaaroon ni yoonu sëñ Tuubaa bu doom yi jeexee jeex na yow yaa ngi jeexal ci yoon bi waaye yoon la mobilisation tam yokku noonu Lamine ni ñi mujjee ñëw na ku leen di diigal maa ngi wane ni surtout Sëriñ Tuubaa amul morom ba tey diis ko ca toog ulaa'ika alaa hudan min rabbihim ñooñu la seen yu biir baax fa suñu waa ñooñu seenu ñaan lu gudd li ñu wax def ko sëñ si lu waxtaan danaan la ba déwén pare na ca gis nga bu nee la ba déwén bu la boo dégg ni mën na si si li mu xaar ne la ba déwén kaay nga fan koy ngelalee def ko ñi mu laa xool loolu doole la kattan la doole yi Sëriñ Tuubaa baraka li fil harakati wa sukoon rabbi la si xaqaale lii kun fa yëkkoon baatu kun fa yëkkoon boobu loolu utilisé moom ci ayam lu bëgg nga am ko da wax rek dafa nekk naan yàlla na nga déedéet la ba déwén noppi la ca waa léegi jëlal nag moom juróom-ñaareel la ca aay ba juróom la di juróom-ñaareelu xalifa nekk ay juróom-ñaar léegi nag wa ulaika humul muflihuna xoolal sëñ mu tax wa ulaika humul muflihuna delloo fee ca taarix ba mbéj maa ngi teeru leen basiir danay basiirun wa basiir ku teeru naan nag lekk ba suur du ñàkk laf ci xarnu moo am jalaal te am jamaal te xar ka ne bii leer kamaal te xam-xam am alal bu yëg fii ka xarnu bi taar ba ci Yusufa al Karim ba buur ba fal ko def ko doomam jigéen ñi far tàggoog sagoom ñu ngi basiirum xarnu bi ci ak ndawam la daal di daw fóoree ya daa fiilee karaw te mus la jaar ci yëfi daw mus la faale xarnu bi suubu la ñiirum tasawuf ku ko rawoon nee na lu yëf moo raw ña xam lu moo ma def sàkkaa ñu teewe xarnu bi gis nga Cheikh Mountakha solution la bi mu dikkee bi mu ñëwee dañoo fekk ci xat-xat yoo xam ni ku dul sëñ Mountakha mënoo ko lijjanti jamono tàng lool tubaab yi jóg attaqué diine lislaam nan ko attaqué woon ba sëñ Tuubaa jóg ñu ne ma may na ma dara lislaam maa ngi ñëw ci góor mu wuti gi nag sëñ bi dana ma baal day dem waaye Mbàkke lii foog ma bind ko dafa fa nekk sama xol kii may bëgg a wax nag dama koy xàllal waaye dégg guma ci moom ma yaakaar faru su loolu de ñëwaguma nag damay xàll pour egg ci moom sëñ Basiru laa doon wax sëñ Muntaxa dafa fekk jamono ci xat-xat ko seigne touba dali won khablu bi jaahihi wa xutla li aman wa li siwaya yéen taxee day ko sama xat-xati jamono moom bu leen ci touba seigne touba seigne touba dogal na gàtt ne yàlla matal na ak kóolu ci ci jiitu wa li siwaya yéen taxee day ko sama xat-xati jamono moom xamu ku djuglu way du don ma gis nga ki ma wax bi mu dikkee lim njëkk ka def moy Sidi mukhtar yekete 1 milliard dimbele état Ah. te bu njëkkoon dañ ne murid yi kat ñoo yay ëpp doole ndax état bi ñoom lay jàppale ñoom lay àndal moo raxas terb yoon muy ba mu set wicc yëkkati un milliard dimbalee état kon ki lay dimbale soxlawul sa dimbal tey imaginer Ablaye Wade su àndal ak Sidi Muxtaar ci liggéey bii masari ko dinaam taxaw même sept même cinq milliards te àggagul université bii ñëw di trente sept ndax dara mu dina setati war nañ koo mën kay ndax ñoom état ñoom lay jàppale ñoom lay dimbale waaye gis nga suñ tubaab lépp baatin la am na yoo xam ne li mu teelee projet yi géré da fekkiwu da koo rocce teg ne indi nag koo xam ne ñëpp la fi nekkal loolu yi suñ tubaab di dox na ndax moom boo ko xoolee ci téere yi da ngay gëlëm ndax Cheikh Ibra Fall lay gëlëmal te boo ko déggatee ñu dugal afestuma si naa ni dafa atiri fala takun xam xidmati bi fa atiri Cheikh Ibra Fall jàngale boo ma bëggee dingat boo ma bëggee dugal ci téere yi Cheikh Ibra Fall la ci génne te boo ko déggatee yàlla dugal kenn mënu ci aar ah. kon li tax may may ñëw mooy sëñ Cheikh Awa Balla laa bëgg a waxtaane dama koy tënk ndax li ma ko bëgg waxtaane man naa fanaane guddi gi waaye ki sama kilifa daa toog te daa bëgg a dem te lii rek laa bëggoon mu dugg ci boppam sëñ Cheikh Awa lañ gis ci Cheikh Thiaw sa turandoo lañ gis ci ko sañ ko dëkk ci diggalul baayam la ci diggalul baayam sëñ ko ci bëgg aw tur de sant ko ci ngir bëgg nit ñi doole moom ceeb rek moo fi raw rek Cheikh Mamadou Lamine dani ko faaw nga nga baal na ma ndax boobu sëriñ bi da daa def lu mu feeñal mu dellu li wala fi naan ñaari kuur duñ bokk mbal sëñ Baara ni ko dama bëgg nga dem na ma ñetti kilomètre ci ci penko bi waaye boo koy def na nga ci am ndigal naka dem waxtaan ceeb bàyyi ceeb la bi si Cheikh Baara ñëwee. fekk borom daaru mox daaru di ko laaj wax nañ dina ko mu sóomu sëriñ bi ñëw nuyoo moom di ko man kan Mbàkke dama bëgg tool yu ma liggéeyale sa borom ma jaamoo yàlla yéen mag lu rek ngir yàlla ak déglu ndax li ñuy wax ceeb lu xam ko lu ñuy joxe waaye lépp daal ci ko xam borom daaru góorgóorlu mooy tax a doon ah, ah, man bare naa ji. digal naa la boo boo demee. na na Mbàkke Kajoor ñetti kilomètre. jël si ci daal. soo demee sama daxaaru pénc boo dee. sama daxaaru boo duga. naa ko def muy sagar bu pénc. jox naa la digal. daaw ma man sama waaye ma bëgg ci jàngale leneen lu doy bi ko yennum sëñ Cheikh Awa Balla lañ gis mu sañ dëkk ginnaaw sëñ Tuubaa lii may wax nag ku ci gis keneen ci baas laa toog ku ci baas laa toog ku ci gis keneen na ñëw fii ni ma gis naa ko yennum sëñ Cheikh Awa Balla lañ gis ginnaaw sëñ Tuubaa sañ dëkk ñu yëkkati ju jumaa denc la ca peggu jumaa ja ginnaaw sëñ Tuubaa Cheikh sëñ Cheikh Awa Balla kenn doon dama ne sañ ci ab dëkk ñu yëkkati jumaa denc la ca kanamu kanamu baraba loolu ginnaaw Sëriñ Tuubaa ci Sëriñ Cheikh Abdou lañ ko gis tey daa topp sëriñ bi ba sëriñ ba gëmal ko wàcce ko fa Njaareem yebal ko Mbàkke Kajoor loolu Baay Cheikh mee toog xam na ci lu gën a yaatu waaye rek comme waxtu wi dafa xat te sëriñ bi waaw danoo bëgg a xam ne ni kun ni taalib si Cheikh Abdou Balla nga waroo nekk jaayil waroo nekk ko yaafus waroo nekk koo xam ne koñ ba nga nekk yaa gën a néew doole yàlla da ko taral ku ñuy wax Baye Cheikh kay moo ko lekkaloon tëggee moo ma ne sëñ Cheikh da daañu ànd mu dal ci kër taalibe boo xam ni am lal sax amu ko wallaahi asim moo ma ko wax sama gabar sax nee ma ànd naa sëñ Cheikh mu dal ci kër taalibe boo xam ne amutul lal kër nii bi dalal sëñ Cheikh Awa Balla ay ginaar ñoo nekkoon ci biir néeba sëñ bi daa taxaw ci bunt bi ñu dàq ginaar yi ba njënd ñu buum nii ni ab ab lal dugal ko ba mbàjj bi sëñ Cheikh Abdou lay taayoon moom la jël laal cële ba nga xam ne foofu ko amatul lan daa ñëw doole ba sax amatul cëlal si Cheikh Abdou daa dugg daa toog yooyu jukkoo ko xool ba xam ndax yomb naa gis te li ko ko may mooy Serigne te ko yar ki ko mooy mooy ki nga xam ni jamono jëpp na leen jaaxal muy Xaadimu Rasuul